abonné leen ci suñu yu wér ci réew ci benn entretien <clears throat> dema xool situation bi gis li xew Sénégal gis itam réaction nit ñi muy fi ak bitim réew ma gis ne Pape Ngagne ci. ñaari fan ñu ngi wax fukk ak nit faatu nañu ñenn ñi wax ni ñaar faatu nañu ñeneen ñi wax fanweeri nit faatu nañu ah man de ci loo xamante ni fekkee naa ko walla ma liir ko liir sax li ma fekkewul comme tout citoyen ma gis ne loolu lu bari la ma fàttali bii lu mel ni xewee fii ci Sénégal mars 2021 gouvernement bi annoncé enquête ne dinañu leeral mbir mi. ba xam ñan ñoo def loolu rek pourquoi nga une force ouais, mais étrangère non mais ouais, mais, mais mais je vais y arriver. je vais y arriver loolu loolu moo indi ma def proposition commission d'enquête internationale loolu la lay fàttali bu gouvernement bi ne dinaa leeral mbir mi ñëpp di xaar ñu def enquête defuñu enquête wala boog kenn mu la la tegal ci table bi tey def nañu enquête bi résultat baa ngi nii même gouvernement bi ñëwaat. ne am na ay force occulte maanaam ay samba booy yi ci rax ma ne loolu wax ko yomb na nañu indi preuve de la même manière que ñiy wax ni force de défense et de sécurité ñoo faat ñi dee dinañ leen laaj ay preuve mais pour ñu mu leer loolu mu ñu àtte ko mu leer nañu indi commission d'enquête international indépendante may rafetlu may rafetlu gannaaw bi ma ko waxee mu bëri ay commentaires mu yëkkati ay coow may rafetlu que la plupart tey des acteurs yi nga xamante ni dañuy jàpp ne mbir mi dañ ko war a leeral ba mu des xëy na nguur bi dañu nangu ne war nañu def commission d'enquête internationale indépendante may leeral puisque da nga ma laaj am interprétation boo xamante ni def nañ ko ci sama déclaration ne Mamoudou dafay woote. ñu indi benn force d' interposition. Mhm. wala d' intervention. Mhm. déet waxuma ñu jëlee l'armée bitim euh, réew ñu koy dugal ci Sénégal. Mhm. mais commission d' enquête internationale indépendante. la ñaan ñu samp ko.